conseil constitutionnel moo mën a dogal ne kii candidat wala kii du candidat. waaw ah, mais conseil constitutionnel li muy attewoo mi ngi ci mi ngi ci Google mi ngi ci téléphone Cheikh Ousmane Touré bii mu tim bu ci juumee dañ ko daan juum nga bu ci waxee dëgg ñu ne ko wax nga dëgg. naka la mën a baaree. candidature Ousmane Sonko. kon am nga ci yaakaar. am bu déet bu doon am ñoom am nañ certitude ci ne bu leen neexee conseil constitutionnel baaral leen. ku leen neex mu dem kon bàyyi nañ ko mu dem bu yàgg. mais Cheikh bi su ma la su ma la c'est que su déggee muy wax noonu dafa man di ko am yaakaar ne. mooy valider nag valider nañ candidature am. Mm. te te bu ñu demee conseil constitutionnel dañ dañuy valider candidature Ousmane Sonko. Mm-hmm. bu ñu koy dàq ci ban base la te sànq yaa ngi wax lu am solo. danga de saaba si fay jeune la. Mm-hmm. wax juste coon jeune la. conseil constitutionnel nag ay maga fa est-ce que xam nga ne ci conseil constitutionnel bii xam naa ci koo xam ne gorob Sonko te Macky xamu ko. ah, ah. déet daa xam ne trop. bul tax bul tax Macky. waaw ma ko xam naa ci koo xam ne gorob Sonko lenqe lenqe. Macky Sall mi ngi ko def ci conseil constitutionnel bi kenn ji juge yi doomam mi ngi ci oto bii toog di ma nekk. juge yi conseil bi. Hmm. waaw. doomam jum jur mi ngi fii. ma ànd maa moom ma ànd. réew mi dafa xat réew mi kay xat boo yaakaar na man ngaa euh, ku ëpp ti mbokk mënoo koo jëw rek ci gàttal d'accord voilà <laughs> loolu ci kanam tuuti dinaa ko yëkkali mais ana naan ma ma jóge tuuti sa xarit euh, Mass Mboum ñëw ci yow ndax jàpp nga comme ni ko waxee ne fi mu toll nii mën nañoo yuuxu mooy ci ñi fare ci Ousmane Sonko di waa Pastef waaw si comme ni ko Cheikh Bara waxee ah Ousmane Sonko euh, ñi ànd ak état de droit doon xeex injustice ñëpp mun nañ créer victoire xam nga lu tax. lu tax Sonko dafa gagné bataille juridique bi. Mhm. te ñu bëri dañ la woon. Mhm. Sonko yoon la amal problème. Mhm. yoon la défier. li tax nangul dem ci yoon mooy bu demee dafay perte. mu dem ci yoon. yoon jox ko dëgg. bi ko yoon joxee dëgg jàngat bi ñu ci jàngat mooy ñaar. mooy lan bi ci jiitu. ban mooy ni ñu ko génne woon ci liste yi. Mm-hmm. jaarul yoon am na ay nit yu toog ci seen position abusé ci position yu nekk. def mm-hmm. li ñu bëgg a def. Mm-hmm. ndax bi débat bi amee ñi ñi xam droit ñëpp te faruñ. même analyse bi lañ def. mooy contumax ba tas na. Mhm. radiation bi amul lieu maam amul raison d'être. Mhm. débat bi bëri ñii na contumax bi tasul buñ la jàppee ak beneen jàpp buñ la jàpp benn jàpp. Mhm. ñi am xel na leen nan ngay expliquer nit ki ñu ne dafa rey nit daw. ñu di ko rechercher pour meurtre. mooy dawal auto policier arrêté ko ci tali bi. contrôler ko pour excès de vitesse gis ni diw nii moom la ñuy wër ci assassinat ak meurtre di ko wër mu ne ko noo demal tey contravention laa lay bindal jàpp ma la ci meurtre Sonko min ne moom lañ condamné compte max moom lañ wax ci seeni kàddu ni dañ ko jàpp pour vol de téléphone Sonko moom moom lañ chargé sept chefs d'accusation yooyu yoon mi ko doon yoon mi ko condamné ci compte max moo ko chargé moo ko jàpp fii ba pôle nord képp ko dajeel mu xam droit nga wax ko contumace da lay wax ne la tass na sauf juriste bu bokk APR wala bokk Benno wala bu Sonko arrangé wu. façon juriste dafa ah Sénégal dafa am ñaari façon juriste dafa am kuy wax droit selon couleur am ak kuy wax droit selon texte yi bi bi nga xamee ni contumace bi tas na mais génn bi ñu ko génn ci liste yi jaay doole la. Hmm. xañ bi ñu ko xañ fiche DG jaay doole la. déposé gi mu déposé caution nga jox ko quittance après bugg ko jalaat xam nga juge bi Cheikh Bara mi ngi koy wax dafa yar état du Sénégal mais dama leen juge bi dafa yar débat bi fi amoon da ko tranché. da ko tranché ci naka. mooy dafa wane ni le droit moom c'est le droit yéen politique rek yéen te yan leen ci seeni politique. ñun texte yi lii la wax. Mm-hmm. texte yooyu du du les hommes politiques ñoo koy xamul juge yi. Mm-hmm. lu juge yi jàng la ko xam ko di ko appliquer. képp koo ci dajal muy wax droit boo ñëwee day kase radiation bi da delloo lañ ko ci lycée saa ba si fay defoon na ko bi mu ko defee ñu def appel mm-hmm. na dañuy kase décision bi mu jël am na benn jàngat ma ci wax ni lii magistrat ñoo ko war a régleel seen bopp ñoom lañ défier agent judiciaire de l' état défier wul les avocats de Sonko wala ses partisans justice la défier waaw hmm. maanaam administration bi justice la doon défier hmm. moo tax il fallait que justice am taxawaay bu ci mat sëkk et heureusement ba juge Thior am taxawaay boobu hmm. beneen bi mooy du moment que ni Ousmane Sonko ñëw na ci terrain juridique bi terrain juridique bi jox ko dëgg xoola ñu appliqué ko ñu bañ ko appliqué dafa gagné ñu bëri bëri bëri bëri mooy Sonko tey fexe na ba ñu doon wax naan na wuy ji mu am dëgg ci ñoom. Mm-hmm. ñu doon wax naan ci état de droit lañ nekk amul beneen alternative ci yoon. Mm-hmm. daf leen a mettre devant les faits accomplis mooy génne leen wax yéen a ne woon les décisions de justice dañ koy appliquer. Mm-hmm. toute personne justiciable buñ ko convoqué dafay dem wuy ji du dëgg. naka noonu bu ñu ko joxee dëgg tam dañ koy appliquer. dañ koy mu amee interpellé naa ci ku mel ni Babacar euh, kii bu. Babacar Ba. Babacar Ba bu forum justiciable. heureusement def na lu rafet woo na ma. dama hmm. li nga li nga wax dama ci d'accord décision de justice peu importe fu mu féete dañ ko war a appliquer. na ma wax naa ci RFM nag. Hmm. xëy na waxuma ci ni ma ci waroon waxee avant. Hmm. mais wax naa ci. wax naa ci te noonu la bépp nit ku bokk ci société civile wala bu génnoon di kaas bu sonkoon na du wuy ju yoon. ñi génnoon di wax dañu war a génn tey na état bi hey ñu naa ñu leen delloo leen ci ci liste yi loolu la yoon wax. d'accord parce que yoon amul lu ko tiim. yoon amul mu ko au-dessus de la loi comme ni ñu koy waxee ci tubaab. te président Macky Sall dafa am lu ñu diggoon. ci waxam ju mujj. mooy danaa fexe ba lay décision de justice ñu appliqué ko waa lii décision de justice la. ñuy xaarandi kon. <laughs> diggéen bu mujj loolu daf ci bokk bépp décision de justice danaa fexe ñu appliqué ko lii décision de justice la. est-ce que donc li war mooy appliqué ko décision de justice <laughs> amul couleur xoola amul couleur. <laughs> Uh-huh. amul orientation. Uh-huh. bu la arrangé bu la arrangé wul yow appliqué parce que loolooy tax ñu nekk état de droit. effectivement moo tax bi nga xamee ne Ousmane nangu na ñëw ci terrain juridique bi dem ak ay avocat am puiser voie de recours yëpp ba yoon jox ko dëgg ñu appliqué ko ñu bañ ko appliqué moom gañe na. d'accord mu nekk candidat comme mu bañ a nekk candidat moom gañe na. te lim gën a gañe mooy lam tàmbalee woon wax ja awma problème ak yoon politique laa amal problème procédé bi yëpp loolu la wane d'accord maanaam nit ki nëbbutu woon ci ginnaaw benn mbalaan ngir jëf wala ngir def ay action yoo xam dafa am lu mu koy mbubboo Ousmane fexe na ba indil la ci terrain bi na mi ngi nii li ma leen waxoon am lii politique kese la maam loolu mooy victoire am bi gën a mag ci bataille judiciaire bi xola gis nga juge tribunal bi bu ko joxul woon dëgg sax Sonko am na dëgg. Hmm. dëggam mooy fexe na ba nit ñëpp koo xam ni mais nu mu tudd euh, tu n'es pas motive tu n'es de mauvaise foi xam nga ni kii lii romb na mbirum yoon. loolu mooy victoire bi gën a mag. mooy victoire waaw. merci beaucoup Cheikh Ousmane jëwriñ Ndiassé balaa may dem ci Mass Mboup euh, ndax li Cheikh Ousmane wax su ma ko jàngatee bu baax mooy. coow li fi mu commencé ak léegi nii donte ne moom jàpp na ne mën nañoo crier victoire ci ñi farak Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko mais ndax amut lu bëri lu mu montré ci suñu wàllu euh, système judiciaire mooy lan dafa génne ay fay en quelque sorte ci anam gi ñuy doxalee jëmle ko ci wàllu ay décision ci wàllu nu ñuy juger également. Sonko bu ma bañee ëpp sax dama naan prophète la. Hmm. waaw ci naka. parce que hmm, daf ñuy révéler daf ñuy révéler maanaam